yéen jàpp naa ne doo leen bokk ci ñi ne ndax fii ci Touba mooy capital du commerce bu Sénégal ñu xool li ngeen néewalee doole yéen waa marché Ocass ngeen ne ay borom yu jëm teel a xëy guddee wàcc ñu seen alal bi nga xamante ne ne dañ ko waroon a yokk ci seen liggéey pour seen liggéey gën a jàppandi conteneur yi gën a yóbbu tey kenn mën a dugal conteneur ci Sénégal. day wëlbati ku wàcc seen kaw kon yéen waa marché Ocass na ngeen daan def a waa ji ginnaaw ndaare la a ci local yi ñu jàll fexe leen ban dem ginnaaw ndaare trois milliards yi ñu jëloon ba doon koy yëpp ci li nga xamante ni mooy commerce bi indi na ko Touba ni koy paajoo ni koy sëkk